ndigal bàyyikoo na ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc si ci kër waajuram wi waaye mu fekk fi rakkam di jëwriñam di sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad yal na ko fi yàlla yàggal te dolli ak wéram mu ànd ak mbooleem njabootuk Cheikh Abdoul Ahad gépp di fàttaliwaat bokki jullit yi ak bokki taalibe yi bis boo xam ne bisub njariñ la bisub tawfeex la bis buñ mën a amee ngërëmul yàlla la muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori wii dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru tubaab muy bis bi nga xam ne ca la jàmbaari lislaam ja feeñoon jamono sëriñ tubaa xaadim rasul waxoon ca waxam ju rëy ja wax ne bisa ngi nii boo xam ne ku ci feeñ dootoo nëbbu te ku ma ko teralal dootoo tàngoog dogo dootoo tàggoog teraanga bis boobu nag moo dëgg malaat moo tax sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ànd ak rakam yëpp toog fii ci ndigalul sëriñ tubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa fas yéene yëkkati ay kaddu fàttaliwaat bokki julit yi fàttaliwaat bokki taalibi yi jàmbaar ja nga xam ne moo waxoon ne ku gont ngont mu guddi te bëgg a dab ña xëyoon nopp lu waratu la doxiinu ku dem ma dem ku demul ma dem rek ngay doxee waxit ne li feeg maa ngi nekk ci kaw suuf Serigne Touba rek laa fa yéenee nekkal dellu waxaat ne ku liggéeyal Serigne Touba ku mën a doon murit yàlla war a fay jàmbaar jooju na kenn nattalu na liggéeyal na Serigne Touba kon jurul yëpp ñoo mën a waase fay Seex Abdou Lahad ci bisam bi nga xam ne mooy dëgmal war a doon gaawu ñaar fukki fan ak ñett ci weer weeru wolof dëppoo ak juróom fan ci weeru tubaab sëriñ bi nag nee na leen ko waaye yàlla moo digle fàttali ndax moo ne wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniina yàlla ba mu diglee fàttali tam da caa am ñu mu tudd ñoo xam ne dañuy bëgg ñu di leen fàttalikoo ci seeni jikko ak seeni jëf yu rafet ndax boo demee ci Seydina Ibrahima dañu waskur fil kitaabi Ibrahima innahu kaana siddiqan nabiyyan mu ne waskur fil kitaabi innahu kaana muxlisan waskur fil kitaabi idrisa innahu kaana sadiqal wa'd moo tax sëriñ bi ne kon nag suñu jàmbaar jee nuyu itam dañuy am lu ñu koy mën a fàttalikoo te sukkandikoo ko ci lii yàlla wax muy Cheikh Abdou Lahad moomee mën nañ koo fàttaliku ci ñett ca dëggu ga mm-hmm. ak bëgg ga sëriñ Touba ak taalibe ga moo tax sëriñ bi ne kon bis bi mu ngi leen koy yëgal nu bokk ci maase fàttaliku ko noonu ko suñu borom waxe ndax lu suñu borom diggee ci ñë ñee ñuy fàttaliku mu def mu defal nu ko ci sunu jàmbaar ji kon nu jàpp bis bi te fas ko yéene euh, sellal góorgóorlu ca ànd ca ak Pastef ndax lu ca waaye def kat te sellal ko Pastef ko danga ko am incha allah wala bu ko amul rek yaa war a seetaat sa bopp sëriñ bi mu ni mi ngi koy yëgal xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko yëgal njabootu sëriñ Touba gépp da dal ci waa kër sëñ Modou Moustapha ba ci kër sëñ Mourtada ñëpp ñoo nga xam ne ñii rek euh, waa kër sëñ Touba gi la sëriñ bi nee na mooy jëw liñ ne yii ci kër gi waaye ñoo moom ñoom ñëpp ñoo ci yem ci kër gi liñ ci am ñoom ñëpp la ko bokk yéene bëgg yàlla sunu borom ak suñu tubaab boole nu ko defal nu ko mi ngi koy yëgal itam euh, bokki lislaam yi ñi aju ci Tiwaawoon ak bokki turux yeneen yi ci des yëpp euh, lim bi euh, bàyyiwun kenn daal di ko yëgal itam njiital réew mi président Macky Sall ak premier ministre am Abdoulaye Dione ak seeni jaraas muy ministre yi yaa ji ñoom ñëpp di ko yëgal itam ñi nga xam ni dañoo aju ci ñoom ministre yooyu muy ay ay directeurs nationaux ba wàcc ci ba ci régions yi ci gouverneurs yi ak inspecteurs régionaux yi ba wàcc si ba ci département bi ci préfet bi ci chef secteur départementaux yi sëriñ bi bàyyiwul kenn kenn kenn nee na mi ngi koy yëgal ñëpp te bëgg lépp loo nga xam ne lii lu baax li ciy bàyyikoo la ñëpp la ko yéene bu sañoon kenn ku ci nekk nga sàkku ko te boo ko sàkkoo danga ko am incha allahu ñu ngi woo ñi nga xam ne ñooy jàngkat alxuraan yi ak jàngalekat alxuraan te jiital ci sëñ maam moor mi nga xam ne mooy doomi sëñ Fallu te ñu féetale ko wàllu njàngum alxuraan mépp jiital ko ci bëgg nañ kaamil yi ñu fas yéene ci jàngal luñ man ak luñ mënul defal lu yàlla addi sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou ko jàngal alxuraan wàcc na ndax ñun xamu ni lenn lu mu bëgg loolu alxuraan ak sëñ Tuubaa waaw te itam lu ngeen ko ci defal dana àgg ci moom te dana rëy fi moom tam kon nag ñu ngi ñaan sëñ bi itam yàgg noo jiite yàgg noo jox ndigal yàgg noo liggéeyloo ci lii mm-hmm. te itam ñu man ko na nga ko bëggee bu nee Sëñ bis bee tax ndax la sëriñ bi dëxaloon ci Cheikh Abdou Lahad ci bis bii la ko dëxalu la ko waxoon mooy bis am nga ne àdduna mu ne woon moom mi am naa ci moom yaakaar te nañ ma ko nañ ma ko nañ teralal teral nga jooju moo fi jugul ba tey jii ci bis tey loola nag sëriñ bi xam gum xam loola moo tax muy muy muy yaatal ko ci woote bëgg teraanga jooju ñëpp mu ànd kook ñoom ndax na ko sëriñ bi barkeele barke booba kenn ku ne mu mën a agsi ci yow ndax bu agsee ci yow sa mbiri adduna ak sa mbiri àllaaxira lépp ci lay baaxe te sëriñ bi loolu rek la loolu rek la ñu yéene ñun ñëpp loolu moo tax mu yeesalaat euh, woote bi ni ko sëriñ jii di waxee ci alxuraan ji ak yi amatuñ li koy dal lépp leer na lañ sëriñ seex it ni mu ko tënkee ci lu jëm ci président loolu leer na leer na nañ xanaa lañ cay gën a jotal rek ndax eh, ñoom eh, ñenn ñu ne am na fu ñu féete te ña fa ne la cëpp di ay taalibe boppam yoo xam dañoo jébbalu ci moom ñenn ñi di ay wëllër yoo xam ne lañ séq ak moom naa sax seen sëriñ ba ñu jébbalu séquñu ko ñoom wala boog sëriñ bi leen jox werd mën naa moom bi la mu seq ak seq ñoom ci yiw adduna ci gëm ko ak yaakaar ak topp ko ak di ko diis ci seeni mbir mën naa sax seen i sëriñ ak gujëfaak moom kon ñooñu ñu ngi leen di fàttali bés bi man may sof rek ñu wax ne naa wax turu bokk yi man yaakaar naa ci sawar lool ndax bokk yi benn muy bokki laqarab yi suñ bi dajee wax lu wér def ko ci ñu gis ko ndax danaa wax ni nit day mën naa ëppale ay bokkam waaye du am leen ëpp kon nawleet mun nawloonte mënut a weesu loolu te sëñ bi jëfe na ko ba bañ gis ko kon bokk laqay bi sëñ gisa ngoog muy bokk lislaam bi nag muy innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jooju daf ko dundal ba ñëpp xam ko muy ci gàttal mooy ak uxwatul islaam yi gis nañ fii bu màggal mu sampir ñëpp dañu ñëw mu wax ak ñoom ci biir wax ji la mu daa wax mooy yéen de awma seenu fay suñu borom mi tax ngeen ñëw jëm yoon bi sallallahu alayhi moo seenu fay kon kooku ñooñu seen bët ñoom leer na diggam ak taalib yi tamit ak mbokk yi ak wala yi lam ci waxoon lu leer la mbokk mi tudd na ko léegi ku jëfal sëñ tubaa day taalib yi ñoo la war a njukkal te ñëpp xam nañ jëfal na sëñ tubaa kon taalib yi seen wàll ngoog la ca des muy bokki réew mi te daa wax ni sa dëkkandoo bu ko xeeb bu ko yàpp te loolu jëfante woon na bu ñëpp xam ko kon seen bisu ngoog kon daal ku làmb ku dajale woon la ku matale woon la ah digal taali yëpp ñu am jom am fulla jàpp suñu njàmbur loolu ñu daal digal ah kon ngoog bis baa ngoog nit nag amul lu dul bisam nit it amul lu dul kam fasanteel kóllëre wala ka ay waajuram fasanteeloon kóllëre ndax lu ñuy laaj bu ëllëgee la lu ñuy laaj bu ëllëgee nag jàpp nañ ne li koy matal ci kaw suuf mooy bu amee bis nga def ci yii may bëgg a wax nga dem ca jëf ca ñaan ca sa bopp ñaanal ca ko borom bis ba kuy motu li këllëre noonu ngay def bis baa ngoog na ci ñëpp maasi ñëw motu li këllëre yi nga xam ne moom la seqoon ak ñoom te kenn ku ne day moom mus sa xaajoo kenn bis bis moom daan daan wax du ko xaajoo day def lépp noppal la ci kon nag bis baa ngoog ñoom moom mi ko jiite nag woote day la def ak bëggal ñëpp yiw waaye léppam mat na léppam yemb na ndax waajuram waa maamam mu defal na ko ko ba noppi waaye nag bëggal na ñëpp xéewal bëggal na ñëpp li nga xam ne moom la bis bi jago ñooñu am ci bu baax a baax bi ci des mooy bokk yi nga xam ne ñoom dañ bokkal yoon wi lu dala ci Maamoor Anta Sali ñoom ñoom jaboote ñëpp maam maaram ñu san mboolem mbokki bu soobu yi mboolem cheikh si la dala ci Cheikh Ibra Fall moo njëkk doon euh, baabul muridina ba ca ka nga xam ne moo mujj jébbalu sëriñ baa ngi leen ko yëgal di leen xamal ne bis bi seen bis la ndax kër gu ci nekk tak man laat ya fa nekk laay woo ndax cheikh bu ne am ngam laat kër gu ne am ngam laat kon ci turu laat yi ñi ngi soññ ñooñu ñëpp doole fedd lil yi nga xam ne moo fi war a xew njëkk màggal gi àllarba ji nga xam ne moo nekk la kaat mboolem koo xam ne sa waajur ci daara ji la nekkoon kay doomam am na lu ñuy organiser fii di ci woo ñëpp ñañ ko bokkal sët yi nga xam tam ñoo sëtoo ci Cheikh Abdou Lahad ci di ay góor ak ay jigéen ñoom ñëpp seen daayira boobu ñu ngi koy yëgal mboolem kuñ seqal doon ay sët yu mag yëpp ak bokki taalibe bi yëpp alxamis lay doon ñu ngi ciy woo ñëpp alxamis la 5 waaw incha rabbi tabaraka moom Cheikh Abdoul ak rakkam yi mbokkal Cheikh Abdoul Ahad yëpp nee na ñu ngi soññi mbooleem sëti Serigne tubaayu jigéen yi waaye rawatina njabootu Mamor Anta Sali gi waaye mboolem ku ñu bokkal diiney lislaam ñoo xam ne amuñu benn bis lu weesu bis boobu ñu ngi ciy séentu ñëpp Serigne Sidi nag mi ngi soññ mboolem umma islam bi bi bàyyiwul fenn Cheikh Abdoul Ahad mooy ki nga xam ne moom la yàlla dimbale woon mu jaboote adduna bépp mbooleem tarixa yi kenn ku ci nekk am nga bis booba seq ak Cheikh Abdou Lahad te waxaloon na boppam ne képp koo xam ne ñëw nga ci man mu xat ba nga jàpp ne dama laa ñàkk yite ñaan naa la nga atte ma ci la njëkk a seq maak yow ku ko seq ku ko xalaat danga xam ne sa diggante ak Cheikh Abdou Lahad lu rafet la woon bis bi gaawu lay doon di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru wolof di la 7 juillet di ci atum mille 2018 Serigne Sidi nag na mu ko daan defe rek la mu waxoon ne daal képp koo xam ne ñëw nga ci man loo am ci man ñaan naa bu déwénee nga am lu ko ëpp ndax tëjuwuma kenn nëbbuwuma kenn maa ngi toog fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad di fi xaar Cheikh Abdoul waaye di fi liggéeyal sëñ Touba di séntu murid yëpp nag di séntu jullit yëpp di séntu réew mépp di ñaan képp ku fi teew yal na yàlla faj sa aajo ci barkeb Cheikhuna Ahmadul Khadim ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu